alors euh, mu mel ni tirage au bi am ci coupe d' afrique des nations bi gannaaw ba nga étiré woo waajal def sa yëf ba pare nga expliqué ñu ko. waaw <laughs> euh, démb ca Yaoundé. Mhm. ca palais des congrès nañu la compétition coupe d' afrique des nations commencé. Mhm. la compétition a démarré démb la ca Yaoundé. ci tirage au yi. Euh, Sénégal euh, Modou Fall xaw ma Isaaxa bu dee euh, tableau bi mun ngeen ñu ko wan xam naa tableau bi ñëpp am nañ ko Sénégal mu ngi bokk poule ak ki nga xam ne moom mooy Zimbabwe Guinée Conakry ak Malawi <coughs> waaw kon nag gis nga yeneen poule yëpp ñëpp gis nañu poule yi waaw pour wax dëgg nag. poule yëpp a metti sauf bu Sénégal maa ko wax am na na benn kàddu boo xam ne euh, gis naa site internet yi di koy génne benn wax bu ma waxoon <laughs> di tooñ dégg nga parce que dama waxoon ne mhm. dañoo am entraîneur boo xam ne dafa am chance dafa am chance su tirage loolu waaw loolu laa la bëggoon wax. voilà <laughs> dégg nga gars yi xaw ma lu mu ñàkk moom mais am na chance. waaw voilà xaw ma lan. lu mu xamul loolu lan yàlla may la Aliou Cissé amul. Mhm. wërsëg boobu am na ka mhm. mooy chance su tirage. Mhm. tirage bu am rek. ne la wóor ne. day favorable day favorable à son équipe. dal da ciy dal. bii dal na <laughs> neexul ba neexul xam nga favori. dëgg la football dafa doy waaw waaye nag favori favori la. même El Hadj Diouf ancien footballeur dégg naa ko démb mu ne ak Sénégal ñooy favori. waaw doo dégg ah, amul sama dem ma dikk. Mhm. ñoom ñaar ñooy favori non c'est euh, euh, yi. Mhm. dañuy waxante dëgg. favori yi ñii la. danaa ko wax tey jii. Mhm. Sénégal Algérie. Cameroun parce que pays organisateur la. te yàgg na ci compétition. booy xam football da ngay xool. day nax di génne. Côte d'Ivoire. Mhm. Mhm. Maroc. Nigéria est-ce que ñëpp duñ favori six yooyu. man maa la wax nga six yooyu. Mhm. munoo ci fexe ba doo ci jël favori bi. te man maa la ko wax fii dinañ fi toogaat six yooyu ma tudd kenn moo ci doon champion du euh, wa champion d'Afrique man maa la ko wax du génn ci six yooyu loolu leer laa la wax man maa ko wax. ba kon nag Sénégal mu bokk poule il faut que nit yi bañ di naan xam damay bañ am na benn wax boo xam dañ koy wax mais loolu amul mën naa ko wax ñu naan léegi amatul équipe bu ndaw c'est pas déedéet am na équipe bu ndaw. Hmm. Malawi mii équipe bu ndaw la. Malawi. Hmm. Zimbabwe équipe bu ndaw la fu ko Sénégal jàpp doo ko yéen a ngi bàttaliku. Ah. Euh, bi ñuy dem keex 86. ba Bokande dugaloon dem si yàlla Bokande 3 buts. Zimbabwe la. Hmm. 2017 Sénégal ak Aliou Cissé Aliou Cissé gagné na euh, waa Zimbabwe Malawi Zimbabwe léegi nga ñëw Guinée Guinée dëgg la dëgg la am na équipe. mi ngi ñëw mu nga ñëw am na équipe waaye nag dëgg dëgg nag man gaw ma ne que Sénégal wax naa mën a tiit ci kanamu Guinée. Mhm. bu doon sax football euh, local ma tiit mais lii du ay lii du ay locaux. lii ay joueurs expartie lañu ñoom nag am nañ ko nag. parce que ca Liverpool Sadio Mané ak ma euh, kii euh, euh, kii kii Keita Naby Keita ñoo bokk équipe. Mhm. waaye foofu de ma Sadio Mané mooy kon nag nañu waxante dëgg Aliou dalaat na ci mu nga ca poule bu baax poule bu neex poule bu kii léegi. le problème nekkul foofu. Mhm. le nekkul foofu léegi. le problème mu ngi nekk fii Sénégal di jouer au Cameroun. ville bi muy jouer. Mhm. ville bi muy jouer. c'est plus de cent cinquante kilomètres de Yaoundé capitale bi. Mhm. cinquante kilomètres. dafa sore. dafa sore. lu jege Dakar san louis quoi. Aliou bu ñëwee mu ñëwaale en attendant. dégg nga. dafa sore euh, capital bi Yaoundé mm-hmm. et ñëpp xam nañ ne que dans le haut niveau football haut niveau mm-hmm. logistique dafa am solo mm-hmm. voyage dafa am solo da nga ko ci jël en compte heureusement noonu c'est que nag gis nga nag Sénégal nag euh, euh, ñun nag suñu ñun nag ñun dañu am changé de mm. imagine xoolal Sénégal chance bi mu am ci kii bi matcham yëpp bafu sam la ko joué bafu sam bu doon bu fekkoon ne léegi Sénégal day joué am na am na équipe yoo xam ne dañuy joué fii ville bi après dem joué beneen ville Sénégal day toog benn place bafu sam bafu sam lay toog foofu lay toog même sax bu jëlee paie foofu lay toog ok xam nga kañ lay génn mhm. quart de finale rek lay génn kon kon loolu baax na. loolu nekk na loo xam ne mën nañ ko gérer. parce que lenn dafa am depuis un certain temps. il faut que ñu nangu lenn dinaa ko wax man maa gën a contre politique euh, sport u Sall maa ko gën a contre yéen xam ngeen loolu. waaye bu fekkee ne en terme bu dee équipe nationale. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg li ci Macky Sall di def benn président sénégalais mosu ko def man maa la ko wax. d'accord. non qu'on se dise la vérité. Mhm. ci eeru euh, Macky Sall la ñu commencé di voyager ci avion spécial. kon ñu delloo euh, naar bi xoromam. waaw d'accord. non non xam nga xam non gi nga dëgg bu amee lañ koy wax. Mhm. équipe nationale bii waa fédération bu ñu bàkku de duñ ci dara. Mhm. équipe nationale A xoolal duñ ci dara. xam nga luñ fi nekkee jaay bii rek. jaay bii rek. rek lañ fi nekkee. mais lépp lu ci des. état du Sénégal Macky Sall dafa mel ni équipe bi présidence la nekk présidence. gis nga bu Sénégal di joué nii. Macky boo ko newoon indi fi sax jaww ji sax mu indil la ko. loolu moom loolu moom loolu man dañ ko koy nangu. léegi nag muy le problème moom mooy voyage bi. dem à Bafoussam à plus de deux c' deux cent soixante dix kilomètres. de Yaoundé de Yaoundé d' accord. mais nag heureusement dañ fay toog. coupe d' bii nag mooy sunu sànni hmm. ci génération bi dëgg la de mooy bi hmm. hmm. bi nga xam ne ñu ngi ko togg depuis en deux mille deux mille neuf lañu ñu togg génération bi deux mille ba léegi war na gagné dara dem na final léegi des na nag léegi nag li nga xam ne li mel moom mooy gagné. kon ah, lu ma koy wax mooy la moom rek a ci des. Hmm. moom rek a war a góorgóorlu. suñu joueurs yi ñoom ma non moom rek ci des de. Hmm. na yokk tuuti xam-xam mu jël coupe d'Afrique. d'accord na yokk tuuti xam-xam. Hmm. Aliou Cissé rek la. moom daal ci moom. moom rek. te man gëm naa ne. bu yokkee benn xam-xam bu ndaw ci maanaam. ci xam-xamam bi mu am. non amul xam-xam bu <laughs> ma ne ay wax amul xam-xam nag. yaa na yokk ku yokk koy am nga ba pare. non amul man wax ma yokk dama ne. <laughs> déedéet na indi xam ah, noonu du bàyyi na déglu ko. na déglu. <laughs> na nangam. mais surtout sax nga déglu ko na am naam am na am euh, oreille maanaam maanaam bañ a rëy quoi. Mm-hmm. comme parce que loolu dañ ko koy bàkkee aussi. dañ koy bàkkee ni euh, day insister ko dafay dafa xaw dëgër bopp si loolu. d'accord euh, te dañ koy dañ dañ koy dañ si rendre dañ si dañ si faral di rendre lu bari. Euh, li des moom mooy après commencé na nag di diw kii parce que gis nga bu même intégration wu sax tey jii boo demee ba ba ba ñuy gis El Hadj Diouf si biir. Mhm. Euh, muy am euh, lu muy influ lu muy influencer si si si si si jour yi je pense que tamit lu muy influer si jour yi daf je pense que am na solo. Mhm. pour man dañu war a jël comment dirais-je Coupe d'Afrique bi match par match c'est-à-dire tey jii waruñu comme ni ñu wax la décréter dañuy dem jëli Coupe d'Afrique wala non. dina jafe noonu noonu non nañ ko jël match par match rek. Mhm. ñu gagné ko et puis surtout que également euh, ñu bañ a di euh, calculer non su ma jëlee deux wala su ma jëlee pay damay dal si kële ça cest à nañ ko jël match par match. Mhm. ñu xool xam ni am nañu équipe bi nga xam. ça pour rien classement FIFA ak euh, Afrique ñu yàgg lool si si si si position yu baax kon loolu dañ ko war a prouver nag sur le terrain pour man bu ñu bàyyi bu ñu def xel xelu. Sénégalais yi que ni ñëpp dañu war a booloo nekk derrière l'équipe booloo nañu ba ba dee eh, nekk si derrière l'équipe am amuñu ko pour man nañu wax joueurs yi ñu muyee la maillot et que comme euh, ni ko ñoom euh, génération El Hadj Diouf Fadiga bu doon doon waxee jëm ci yàlla Bruno Metsu daan jox euh, système tactique de jeu wala mu jox leen benn système de jeu ñu dawal tuuti gis na baaxul ñoom seen biir ñoo koy changer si terrain bi. Mhm. pour man na joueurs yi am grandeur boobu jël am mën nañ ko te te Euh, ça pour yaa ñu am euh, maire euh, ak centrale am maire tey par exemple pa boo xoolee post yi postes yi ñu am yëpp Afrique loolu moo tax sax classement bi ba tey amuñu coupe mais ba tey ñu nekk premier en Afrique am classement bu baax si si à la à FIFA je pense que loolu kenn waru ko négliger. Mhm. na gars yi demee jom quoi mais nag mm, comme ni nga wax noonu c'est important coach nay nay déglu. Mhm. waaw mu xam ne mhm. équipe daf ko bokk. c'est important. xam nga loolu moom mooy. le problème le problème moom mooy. tey jii lépp yembal yow boo amee ñu tegal la. Mhm. bu dee voyage yóbbu la ci hôtel bu baax. bu dee euh, maanaam préparation jox la préparation bu doy. et foofu tamit maa ngi wax encore une fois damay delluwaat ci waa fédération xam nga ñoom ay cuune lañu. ba tax na ñoom xa au niveau daf leen dépassé. fédération au niveau da leen dépassé. c'est grave ça. parce que ki leen doon sauvé. ci ay affaire voyage yooyu noonu tey talatu ko de. kan la Ablaye Sow. ok moo nekkoon vice président moo doon dem def reconnaissance dem xooli nangam nag ah ah léegi nag talatu ko de. yi dara tal. ah na local yi tal na gouvernement bi. Mhm. léegi nag ñi ci de ñi fa nekk nag. Mhm. lenn la. kenn moo fa nekk koo xam ne man gëm naa ne mën na def liggéey bi moom mooy Cheikh Seck. Cheikh Seck. Mhm. parce que au niveau xam ne ko xam na football. Mhm. waaye ñi si des kuñ ciy booy kuñ ciy yóbbu keneen. di di di nga def toj toj. xam na ko de Cheikh de xam na ko. Mhm. kuñ ciy yóbbu di nga def toj toj maa ngi koy wax fii nag. tey maa ngi koy wax bu ëllëgee bu ñu nee nag waxuma ko woon. dama ne pour une fois moom pour une fois ma d'accord ak yow. non non non non c'est damay wax football. football laay wax. football je parle de football. Ablaye Sow. ak Cheikh Seck ñoom ñoo doon yore affaire logistique bi gérer ko. ñoo xam nu ñu daan def dañuy dem xam ne voyage bi ñu ne i eh voyage bi de bu ñu duggee avion. Mhm. Euh, régulier euh, avion euh, kii vol spé kii xam nga vol régulier. Mhm. dégg nga buñ ko xam nga buñ ko jëlee. Mhm. atal na ñu tardé atal na ñu aw na nangam ñu daw gaaw wax ministre bi Matar Ba Matar Ba dem wax ko Macky Sall. gars yi daw gaaw def ay avion spécial. indi. ñoom ñoo doon dem. dem xool hôtel bi ñu leen jox xam nga euh, booy joué ak kii dañ lay jox hôtel bu ñu demee xool hôtel bi xam ne hôtel bi baaxul. ñu ne déet ñoom ñu dem ute otel d'accord hôtel xam nga yooyu yooyu yooyu yooyu yooyu la. Mhm. loolu moo doon force Ablaye Sow doon anticiper quoi. ak Cheikh Seck loolu moo parce que Cheikh dafa xam le haut niveau. Mhm. dégg nga soow Sow ñooñu ñoo war a wër. Mhm. waaye bu ñu fa yóbbu ñoo xam ne. dañoo ñëw ci fédération pour xool rek. xool rek moo leen fëndi ci équipe bii xam naa leen xool du gagné du xool rek kay gagné. xam nga xam xam naa leen. Hmm. am na ñoo xam ne dañoo ñëw spécialement rek ñu wax ne non non boo leen ma joxe équipe nationale. bu ma ko ah. géré. nangam hmm. xoo yi xam naa ba affaire bi du xoo. Hmm. ma ne. loolu du xoo. ñu mel ni ñaan coach. waaw waaw ma ne. de waay yow. Eh, non dana jot. xaaral rek dana jot ñëw mi. <laughs> dana fay man ay junj yi bëgguma ko. gis nga junj bi may junj nii. Mm. bés dina ñëw fii rek man la li nga doon junj nag mu ngi nii. xam naa ne xoolal xaaral ba ñu defar équipe bi. Mm-hmm. maanaam eh, commission yi defaguñ ko. d'accord bu ñëwee ba defar commission bi ba ne la ñu ne leen ñii ñooy gérer équipe nationale. Mm-hmm. ñii ñooy nangam nii nangam nii dinaa la wax nag. parce que dafa ci am joo xam ne loolu la ñu xalaat affaire bi du foofu affaire bi logistique la. d'accord ku mel ni Ablaye Sow ku mel ni parce que Ablaye Sow daf ko wane. Mhm. moo ko daan def. Mhm. depuis bi ñu commencé résultat yi ngeen ni gis nii équipe nationale yëpp c'est lui. c'est lui d'accord. Augustin moom day ñëw rek toog. match bu jotee mais coach avant waxtu wi du ñu xooj aussi parce que wax nga euh, ministère. wax nga coach Aliou Cissé wax nga fédération mais engagement personnel joueur yi aussi c'est important parce que même bu ñu la euh, euh, dugalee ci oto bi gën dugal la ci avion bi gën mm-hmm. aussi jox la nga mm-hmm. lekk ba suur naan ba mandi soo demee sur le terrain yaa war a mën a wane li nga mën dama d'accord ci li nga wax li nga wax mooy dëgg mm-hmm. du question Aliou Cissé rek joueurs yi am ñoom dañoo war a am jom fi ñu leen teg teg ñu fa seen ay morom nañu waxante dëgg affaire bi du Aliou Cissé joueurs yi tamit am leen jom wax naa ni ko ñoom man bi leen di invité fii. Mm-hmm. wax naa ni ko laajal laajal Cheikhou Kouyaté wax naa ko mm-hmm. Cheikhou la population a de la coupe. wax naa ko Cheikhou Kouyaté. te dañ ko yaakaar ci seen génération. wax naa ko joueurs yi may wax waxal au téléphone. Mm-hmm. wax naa ne ma ne leen dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu dee Aliou Cissé xamul dara fële yéen xam leen dara def leen dara. ngeen gagné. gagné cette coupe Euh, Cheikhou Kouyaté de moo ne mu ne ma euh, kii euh, mu ne ma grand gomis dëgg dëgg ñun suñu biir dañ koy wax ñoom ñoom dañ koy waxtaane suñu biir ñoom waaw moom moo ma ko wax mu ne ma gis nga ak yeneen jours yi mhm. ne ne ma ñoom dañ koy waxtaane dañuy naan saa yi dëgg dëgg am nañu lépp mhm. il faut ñu gagné nag mhm. la coupe ou rien coupe important de réfléchir comme ça non ñoom ñu koy xalaat na ku ci nekk loo mënul nga ne bàyyil loo mën nag yonga dem. Mm. mu ngi noonu. léegi pare. waaw euh, ci tam xarit bi. Mm-hmm. il faut que ma delloo njukkal Adama Ndaw ñu mm-hmm. koy ñaanal yàlla na fi yàgg te wér. amiin njabootam. amiin ànd këram. Mm-hmm. yàgg fi te réew te wér. sama yaay. bi nga xam ne mu ngi nekk fii ci rue 15 angle 8. Mm. muy mère Anta Faye. yàlla na fi yàgg. wér ak maire Cabandiir ca jokkul ak euh, maire Awa Fall ak maire Awa Fall mën a defar mën a mooñ cere ah, macha allah kontaan naa lool ci ñoom ci am na solo bu baax di nuyu ñëpp nag ah, waaw sa ñu ngi koy béggee di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram